yee gars yi Sadio Mané a racheté un club français gars yi Sadio Mané jënd na benn club français ne ñëw ci mbir yi nan la naka la nan la salaamaaleykum amateur de foot ñu ne leen ku ci nekk seen tur ak seen sant suñu international sénégalais bi di Sadio Mané démb bu mbir yaa ngi doon ruumalaat que ni dafa war a jënd benn club français ma leen war a expliquer mbir nu mu demee naka la tey nag si officiel eh, jënd na ko doon na propriétaire bi doon fa actionnaire ak lépp mu ngi doonee eh, club bi nag mu ngi nekk foofee ca national de français. équivalent quatrième division français ngeen xamee ko noonu club bi mu ngi tudd Bourges Foot 18 xam naa ni club sénégalais la nar doon eh sénégalais ya nar a mbàmbandoo rek mu ngi noonee ci noonee nag li ma ne club sénégalais la war a doon euh, am na benn joueur ancien joueur euh, équipe nationale du ma ne ancien sax nag mu ngi football ba léegi kooku di Moussa Konaté ancien coéquipier Sadio yi ñoom ñaar euh, kookee di Moussa Konaté moo nar a doon joueur bi fa nar ñëw semaine bii di ñëw euh, ngeen xamee ko noonu war na faa ñëw officialiser ñu officialiser ko waaye yamaatuñ foofu suñu international sénégalais bii di Sadio Mané yónnee na sec boo xam ne nii euh, dañ cee war a jënd ay joueur ci mercato bii di ñëw pour mën a renforcer équipe bi ngir war a maintenir niveau bi nga xam ne ci lañ toll ngir fàttali leen ne kookee di club boobee national 2 bi mu ngi fa jël Avant Ndare ngeen xamee ko noonu ci ni ko Sadio Mané jëlee pour en ëllëg bu ne ba nekk Ligue 2 ñoom seen ligue nga xam ne ne suñu waa ji liggéey na fa mu ngi noonee mu doon club boo xam ne ni nag mu ngi évoluer mercato bi di ñëw danoon a renforcer équipe bi jënd ay joueurs xam naa ni joueurs sénégalais yi moom nar nañ faa buut mu ngi noonee en tout cas man xaaral ma takkaat samay daal sax dem waajal ñu recruter ma wala ma dem def fa test bourse foot 18 ngeen xamee ko noonu mu doon loo xam ne nii képp kuy sénégalais war nga cee mën a def ay drapeau def ci ay kër te xam ne ni lii jaloore bu rëy rëy rëy la mu ngi noonu ne nga jóge ca footballu tànku neen waaye yamaatuñu foofu dem ca footballu godage ñëw ca euh, génération foot di évoluer jóge génération foot dem Metz sa seddaay ba jóge Metz ñëw fan mën naa ni Southampton jóge Southampton Liverpool ba ki yàlla la yóbbu Bayern nga jóge Bayern dem keesa fa xaalis waaye jamaatuñu foofu même par 15 ans nga football sa carrière jeexagul nga jënd benn club c'est exceptionnel des cœurs pour ci commentaire yi ay drapeaux ci commentaire yi tant que sénégalais bu dee fier ngeen ci moom ngeen bindal ma ko ngeen xaar ci commentaire nan ngeen gisee mbir moomee nag d'accord ngeen ci kontaan ngeen ci ou lépp ci commentaire mu ngi noonee gars yi looloo nekkoon xibaar gi képp koo xam ne abonné goo suma chaîne YouTube dugal suma bio TikTok nga bës logo YouTube mu yóbbu la chaîne YouTube bi nga abonné activé ko seetaan vidéo yi ba jeex jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous Fassane eh. sa liggéey bi nice na ok continue ko te positif xam nga da ngay réfléchir xam nga doo wax naka su dul noonu j'aime bien ñoo far kontaan naa ah. wallaay ndeysaan saa yi gerte la quoi ñoo far avec mon grand Diouf mais bëgg nañ ci waa mais Bamada lan nga wax eh, wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan kese do continue quoi incha allah après daal a nga koy jox bëgg koy après daal la nga koy jox bëgg kuy taw. ah.

Thank you. والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على العين أقصى لما لبثوا أمدا ويرعون السماء yàlla leen yàlla def na lu am ñoom. macha ah, allah. yàlla leen yàlla def ay Sinwaa. ngeen mokkal alxuraan. ngeen mokkal alxuraan. ndax mokkal alxuraan moom seen yaay nañ kontaan vraiment. loolu la leen bu baax a baax. yaa tuur macha allah. yàlla leen yàlla def ay Sinwaa. Sinwaa def leen ay.